Señor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 وطبتم جميعا وتاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا البيت الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والخادر عليه أحبتي في الله بوكي جلدي بوكي mbokki ñu ngi leen di nuyu lu baree bari di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadunil Muntaxa di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi ba yéene jëm am ci yoonu murid wi bi sifatin xassa ak yoonu lislaam bi sifatin amma yépp suñu borom defal ko ko di jël nuyoo boobu deg ko teg ci loxol sëñ Mouhamadul Fadil mi nga xamante ne nii moo ne fii ci kër gi mu nuyu mboolem ñi fi nekk dalal suñu gan ñu tedd yi fi ñëw tàmbalee ko ci seex Muhammadul Maamoun moom seex Muhammadul Fadal ak sëriñ maam Cheikh Anta moom seex Muhammadul Mourtala mi ñu tàmbali léegi sëriñ Abo moom itam mu sëñ Muhammadul Mourtala moom itam mu agsi moom laa doon gàttantu léegi euh, di rafetlu kàddu yi sëriñ Abdoul Ahad bu jot li di Eh, dalal tam sama yenen mbokk yi fi nek yépp ci di rafetlu seen teewaay bu baax a baax euh serigne idali tay moy dalal gan ñi eh, ak sama jamm bu ñak solo bi di Ahmed Mbacke mom serigne Sidim serigne Abdou Khadir moom itam mi ngi sok egsi legi ak mbooleem ñi fi teewal ñepp rek eh, ak Cheikh Abdou Mbacke ma di sama jarbaat cheikh am serigne Modou Boussa Dieng damaa jiw maa koy la rek ok kon ñu ngi rafet rafetlu kàddu yi bu baax a baax di jël nuyoo di ko teg ci loxol sëriñ Abdoulaye Kane moom itam mu jottali ko mboolem daayira yi ak ñi fi teew sëriñ Maxtaar Kanji moom itam ñu ngi koy jot li am nuyoo mu teg ko ci loxol jami ñu teg ko ci loxol jamiye bi mu jàlle ko ci mbooleem taalibe yi di sant ñëpp nag ku ci ne gis nañ la ak fa nga jóge ak soriwaay ba ak coono ya nga daj ba ñëw waaye nag ñi ngi koy rafetlu bu baax a baax waaye nag coono yooyu du niil coono boo xamante ni dangaa jóg sa tànk euh, jóg ñi di dem ci ay caaxaan ñi di dem ci euh, aada yi yoo xam ne du suñ aada yow nga jël lépp ne sama sama sama sama tànk bi damay koy jël yóbbu ko fu may dégloo wàllu diine kon loolu rafet la euh, ba tax na kon ñi ngi koy rafetlu bu baax a baax Eh, kon dañu tollu ci jamono bu doy war ñu dem at yu bare bari yo xamne dañu dañoo dara yëngutul mu melne lolu loolu ku ne xamne ni lolu bugal mbugal la mbugal mu metti metti la motax ñu ne tay nañ indi tem bo xamanteni ni moy euh atharul maasi nañ ci nañ ci nañ mom lañ bëgg andi jeexeetalu bakkar ci xeet wi ndax suñu borom dañoo jàngaloon ne euh, lépp lu ngeen gis ci seen kaw ci ay mbugal ak bàkkaar nee na loolu seen loxoo ko fàggu nee na lépp lu ngeen gis ci nattu nee na suñu borom nee na yéen yéen a ko teg seen bopp kon nag waxtaan woowee dañ koy tënk ci ñeenti ponk bi ci njëkk mooy rukaabu safinatin ànd giñ ànd nga xamne bu mbugal mi ñewé bu dara ñewé ñun ñëpp ñokoy koy bokk te mënuñ ci muccu ba ca dess di khataru dhunubi wal maasi dansé bi nekk ci bakkar yi ñettel bi nak moy mal mahraj lan moo ñu ci mëna génne ñu daané la ko nak ci mata sanatu tuubu kañ lañu tuub kañ lañu tuub loolu mu melne kon nat bo gis ci doomu aadama loxoom ma ngi ci biir moo tax yonent bi sallallahu waxoon ne ñëpp xeet yu dañoo mel ne ñu ne ci genn gaal goo xamante ni nii buñ buñ muccee ñëppay mucc waaye buñ waree lab ñëppay labandoo te xaddis boobu muy masalul xaa'imu مثل الخائم في حدود الله والواحه فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استخوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نسيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا nee na xeet yépp dañoo mel nañu dugg ci genn gaal saa ñu soxlaa ndox rek wàcc dem ci ñi ci suuf ne leen may ñu ndox ñu may leen ndox ñuy bàggante ba mu yàgg ñu ne ñu ñu ne ci suuf ñooy dem ci kaw di ñaari ndox ba mu yàgg am ñu ne ci suuf gàttum xel daal ne waaw ñun tey ñoo bënn ci suuf rek ndax ñu am ndox ndax ñu am ndox mu jëfandikoo yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu ñu leen bàyyee ñu bënn ko nee na ñoom ñëppay labandoo nee na bu boobaa bu ñu bàyyee ñu bënn ko ñëppay labandoo waaye nag nee na bu ñu tëyee seen loxo ñoom ñëppay mucc moo tax mu ne walaw axazo ala aydihim la naju jamian nee na suñ seen loxo ñoom ñëpp danañ mucc kon nit ki bul bul jàpp ne boo toogee sa kër rek bàyyi sa njaboot ñuy ne ci lu leen neex bàkkaar bu leen neex yow nga ne mucc naa jéemoo ca dara booba yaa ngi lor sa bopp bu suñu borom ñëwee ak mbugalam bu mbugal may ñëw ñëppay dugg ci biir loolu nag lu do lu mat a bàyyi xel la ndax jamono jiñ ñu toll nii ñiy xeex diine xeex na euh, xam nañ ne mag ñi raw nañ leen waaye xeexu kuy xeex diine dafa dafa dafa jan ñoom ni ñuy xeexee ni ñu def ci saayir nii duñ ko def ñoom ca suuf la xool ak xëy génération bi ñu ëllëg ku ci sàgganu de danga nga a am doom mu mel melokaan woo xam ne dana la jaral dem xaru ji ku ci góorgóorluwut da nga am doom joo xam ne dana la jaral nga dem xaru ji melokaan woo dégg ñu koy xeex rek nit ñi di ko mettitlu muy baat yo jikko yoo xam ne kenn du ko wax sax ci rajo ku ku sàggan tuuti mën ngaa am doom ji mel noonu ndax ñoom dañun dañoo tëral suñ programme ñoom ñu tëral seen programme ñoom ñu ngi daan fekk nangami at ci kanam nañ fexe ba ñëpp yàqu nañ fexe ba jikko ju baax du amati nañ fexe ba diine néew doole loolu nag ku nekk nag am nga droit yow euh, boo bokkut ak ñoom diine ñoom ñu doxal seen diine mais yow sa diine waroo nangu di seetaan bañ génne la ci sa diine wala ñu génne la ci sa ngëm-ngëm soppi sa jikko soppi saw xeet bu ëllëgee nga am ci bàkkaar ndax euh, njaboot gu yàqu moom gàcce gi ci nekk ëllëg ca suñu borom tabaraka wa taala rëy na lool diis na lool damaa jëlale boo ba sàgganee sa sa njaboot ñuy mooy yàlla di bàkkaaru mbugal ma ci suñu borom di indi di la ko tegaale yow ci sa bopp nga koy tegale xeet wi waaye gàcce ga ngay am ci sa borom ëllëg ñëpp taxaw njabootug lislaam taxaw sa njaboot des ca gannaaw sa njaboot ne ci mbugal mu metti kon loolu lu mat a bàyyi xel la njaboot gi ñu taxaw ci taxaw bi ñu ci war euh, ku ci nekk koo yilif ak noo ko mën a yilifee nga fexe ba yow loola yàlla musal la ci ba doo ca bokk kon mbugal mi buy ñëw ci ñëpp lay ñëwandoo ci ñëpp lay dal waaye du dal ci kenn rek euh, moo tax Aboubacar Seydina Aboubacar mos na def benn xutba mu daal di wax ne euh, am na benn aaya bu ngeen di dégg boo xamante ni suñu borom tabaraka wa taala da ciy wax naan yaa ayuha alladina amanu alaykum anfusakum laa yadurukum man dalla iza htadaytum mu ne aaye boobu da yéen a ngi koy dégg waaye juum ngeen ci lool ndax ñu bari dañoo jàpp rek dañoo jàng kaw gi ne yéen de yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla su ngeen jubee rek keneen ku dëng seen yoon nekku ci su ngeen moytoo seen bopp su ngeen gindikoo ku réer boppam la réeral ni mu ne aaye boobu de dana daana sonn ci firi ko lool moom dafa waxoon sax ne alfaham almaxluut la ko tudde woon al alfaham almaxluut mooy déggin wu juunu wu dëng woo xam ne bokkut ak li tax suñu borom tabaraka wa taala wàcce ko nee na loolu bu bu kenn sukkandiku ba tax ngay seetaan kenn di dëngal loola mooy dëppook aaya bi nga xamante ni mooy addis bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon euh, nekkoon ci euh, kër euh, ummuhaat kenn ci waajur yi jullit yi muy Zeynab bint Jahsh radiyallahu anha nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa nekkoon ci moom ba yàgg mu daal di jóg mel ni ku tiit mel ne ku ku jaaxle lool daal di wax ne laa ilaha illa allah waylun lil arab min charin xad ixtarab futiha al yawma min radmi yaa juuja wa maa juuja misla haasi mu def nii ci baaraamam daal ne tey ji de ubbi nañ ci radmu yaay jooju wa maa jooju muy jafe-jafe yu metti aw tàngoor wu metti mu ne wane ne lu lu lu jege doomu aadama yi la ba mu ko waxee Zeynab bint Jahsh ne ko ndax ndax ñun danañ alku te ñu baax ñi ne ci ñun mu ne ko waaw ñu baax ñi buñ nekkee ci ñun itam lu bon bu ñëwee ñëpp lay loraale man daal lañ naan mooy naan ñax goo dana lakk gu tooy loolu sëñ tubaa daana ci soññee bu baax a baax a baax a baax dafa am kilifa gu mag kilifa goo xamante ni dafa bokkoon ci ñi ñi daroon sëriñ bi mu jege woon sëñ bi loolu sëñ bi woo ko benn bis ne ko ñëwal tey ma yeewi la ñëwal tey ma ñaanal la nga dellu ba mu ko ko waxee nee na mu ñëw sukk ci sëñ bi sëñ bi ñaanal ko bu baax euh, yaakaar naa sëñ sëñ Modou Racine Ndiaye moo nettali xisa bi sëñ ma Bànji Ndiaye moo ko nettali sëñ ma Bànji Ndiaye moo nekkoon ak sëñ Touba moo ko nettali sëñ Modou Racine Ndiaye sëñ Modou Racine Ndiaye nettali ko mu ne ko man ngaa ñëw dellu tey di ko ñaanal ñaan gu yàgg ba mu yàgg ba mu jóg mu ko ñëwal mu ñëw togal mu ne ko boo demee bu la kèn ma bu kèn ma dox sa digënté ak sa borom bo démé bu kèn ma dox sa digënté ak sa borom bo démé bu kèn ma dox sa digënté ak sa borom néna ma wax ci sama xel ne ah li da doyna war li da li li da reyna na sëñ touba daat koy tontu ci xel ci xel dam xalaté rek ne ne li li mbir la señ bi waat ko bu ñew mu ne ko loolu tax ma bëgg nga yóbbu nga nga yóbbalu toogaatal mu toogaat nee na mu toogaat mu jàng ñaan lu yàgg yàgg yàgg yàgg tifli ko ne ko boo demee bu kenn mën a dox sa diggante ak sa borom ba boo demee bu kenn mën a dox sa diggante ak sa borom wax ko ñetti yoon mu ne ko incha allah mu ne ko boo saxee ca loola nag foo ne ana sama borom mu ne la maa ngi nii nee na ma ne ko ah loolu dana neex dana neex ba ëpp sama borom ana nga mooy lan mu ne ko boo nekkee ci la mu bëgg mooy nga nekk ci la mu bëgg mooy ana borom mu ne ko maa ngi nii nag mooy loo soxlaati mu defal la ko hmm. sëñ Tuubaa ne ko foo ne sa borom ana nga maa mu ne la maa ngi nii waaye ana nga ji nag ana sa borom ana nga ji mooy sax ci li mu bëgg boo saxee ci li bëgg rek nee na loo yi suñu borom dana la ko defal te loolu mooy maa ngi nii ji kon nag mu mel nit ki lu jamono jaxasoo jaxasoo war ngaa fexe yow ba sa njaboot nga sacrifice ba ñuy yàq ci jamono ñoom duñ ci bokk te seetaan googu mooy waral loolu so seetaan googu mooy waral mbugal mi mbugal yi di ñëw ci kaw doomu aadama yi kon nag bu kenn toog bàyyi njabootam ñu dëng nga defe ne la ngay jaamu yàlla yow la ngay góorgóor la ngay def lépp suñu borom eh, dana tax mu faté né yow yaa ngi seetaan diine ji jéemoo ci eh, sa dom ji bu wut sa yon nekku ci bu jangul alcorane sa yon nekku ci bu né taxawalo di dem ci am fo nga bëgg lu ko neex ba doko ko yedd doko jubanti néna boba yaangi sa musiba yaangi sa musiba yaangi ca lo xamanteni ni yaangi lor sa bop dama jëlal lor sa bop waye xéet yépp yaangi lor ndax merum suñu borom tabaraka wa taala moom bu ñëwee ñëpp ñoo ci bokk te loolu dañ ñëw ci kanam wax ci da danse gi nga xam ne nag moom moom la mooy beneen tomb bi mooy danse gi bàkkaar yi danse ci doomu adama bokk gi ñu ko bokk moom mooy loolu mooy képp ku def dara seetaan jéemoo ci dara bu mbugal may ñëw ñëpp a koy bokk yaakaar na corona jaaroon na fi corona bi leral na ci lu bari ta ci kanam dañ ci ci del ci dellusiwaat boo seetloo xeet yi won yépp ci alcorane suñu borom wax na ne fa mujj ak ñom moy mbugal rek bañ bañ jàddee suñu borom dañ na mbugal mu melne kon moy mom ak fayam moy mbugal bokku na ci sax ndimbalul doomu adama nga deung boy faatu suñu borom teg la metti sukuraat su metti wala jàngoro ji metti mu dindi sa mu dindi sa mu dindi sa say bàkkaar loolu sax sant yàlla la ndax li mu metti metti moo gën nit ki yóbbaale ko ndax fële moom dund ko du jeex waaw fee moom dund ko dund ko du jeex la ba faaw moom day dem mettit la woo xam ne du amut fu mu yem loolu tax nag gaa yu baax yi daan jël seenu dund euh, dëddu ci àdduna jublu ëllëg ndax ëllëg du jeex moom ëllëg fu amut fu mu yem bu dee fii nag dafa am fu mu yem fu gàtt fee nag xaala bi ci doomu aadama bi nekk ci lay continuer fu mu ba ba faaw loola du dañ bokk na ci danse googu mu da mu danse suñu borom nee na wa ma asaabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yaxfu an kasir nee na lépp lu ngeen gis rek nee na mbugal bu ngeen gis lu metti metti metti metti nee na yéen a ko jëf waaye dama ne day nee na day jéggale lu bari da koy jéggale dem na ba egg ci ne walaw yuwaaxisu llahu nnaasa bi ma kasabu ma taraka ala zahrihi min dabbatin nee na bu fekkoon ne dafa topp nit ñi dëgg dëgg dëgg du bàyyi dara ci kaw suuf waaw waaye wa yaxfu an kasirin ji foofu la yërmande suñu borom la toppul lépp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat ne لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul wenn xeet waxuma sax ne ci mooy yàlla gu wér guñ fesal gu wér a wér te yàlla andul leen jàngoro joo xam ne seeni maam xamuñ ko woon nee na yépp xeet wane ci mbugal wane wane ci faaxisa mooy ñaawteef mooy mooy mooy mooy ñaa ñaari xeet yu bokk di xeet góor ak góor jigéen ak jigéen di sëy yooyu yëpp suñu borom wax na ko ne buñ demee ba faaxi sa boobu fés nee na dana andi jàngoro yoo xamante ne nii amutoon ci maam ya nee na buñ demee ba fésal lu bon nee na dana am jàngoro yoo xamante ne amutoon ci maam ya te mooy loolu xaddis boobu abdullah ibnu omar radiallahu anhuma moo ko solo muy lam tazhar alfahishatu fi xawmin qattu xata yuclinuu biha إلى فشت فيهم الأوجاع والأسخام التي لم تكن في أسلافهم نينا يو نياو يوي دو فيس موكو تي أو خيت ني أوفيسال داف كو أوفيسال نييب ديكو غيس نينا تا سونو بوروم دو واتي أي جانغرو يو خامني أموتون تي يو يو خا دا غيس جانغرو يو خامني موسوني كو غيس يو خامني موسوني كو غيس تي سين خيت تا من نانيو لير ني لو نياو موم فيس نا فيس غو خامني موسو تي أيغ dem na ba egg ci lu bon ñu siwol ko ba nga xamanteni ni gone yi ndaw yi nga xamne ne diine xamuñ dara lu bon rek seen telephone sax buñ ci yoree man nañ ci jàng lu bon nga xamne kon control bi kon jafe na nga xamne kon control bi jafe na bëgg sa bëgg sa njaboot nak ba tax yaroo ko mom moy euh jël jël sa jël sa jël sa musiba di ko yar rek yàgg yàgg dana la masa lor dana la masa indil musiba moo xamante nii musoo koo gis ci àdduna loo tax jàngoro yi bari na lool boo seetloo feebar yu bari yoo xamante ni amutoon ñu ngi koy gis ci àdduna bi bi ci mujj yaakaar naa mooy corona. boo seetloo li ko jiitu lépp ay wax yu bon lañ doon wax di tasaare lu bon ci adduna bi foo dem gis fa lu bon ba nga xamante ni lu baax sax daa tumranke ba ku ci nekk sax da ciy wéet lool da nga ciy da ngay sonn lool kon yooyu yëpp ñu war a dellu ci yàlla dellu ci yàlla kese nag doyut waaye da nga cay da nga da nga dellu ba noppi jéem ca nag yow ba fa nga mën a yem. waxuñ sax nga forcé kenn waro forcé kenn kenn du not diine kenn du ci manante kenn waaye da ngay bàyyi fa eh, sa kàttan yem muy sa njaboot say soxna say doom nga fexe ba duñ dugg ci firuk firuk iblis googu duñ ci dugg waaw nah, ba fexe ba sa njaboot duñ dugg ci du dugg ci firuk iblis googu yow ya, su boobaa jéem ka ci dara waaye nag boo toogee di seetaan rek yow euh, jéemoo dara su boobaa sa mbir day yomb moo tax mu ne xat zaharal aids waxu maradu nafsul manaa muy lu mel ne sida yooyu yëpp ay jàngoro yu génn la am na feebar bu ñuy wax saylaan ak yu baree bari yoo xam ne kenn mësu koo gis ci yu bon addis ba addis boobu rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ciy continuer di wax ne buñ jógee ci ñaawteef yooyu buñ ko buñ ko buñ buñ ko dee def jàngoro yooyu dana am waaye mu tegaat kenn itam bu jàngoro yooyu amee ba noppi itam mu teg ne walam yamnahu zakat amwalihim illa munihul xatra min as-sama nee na asaka itam ñu sàggane ko ñu sàggane asaka su suñ ko sàgganee nee na ndox manqué wala ndox ñëw te du am njariñ Sénégal ku nekk xam na ne ren taw na bu baax a baax a baax a baax waaye nawet amut nawet amut loolu lépp lañu war a seetaat jàngataat suñ bopp bu baax a baax a baax walam yanqusul miqyaala wal miizaana illaa urizo bi si sinniin wa shiddatil na wa jawri sultaan nee na ba ci njaay mi duñu respecté poids yi di naxante nee na yooyu yëpp buñ ko defee nag nee na dana leen jékki-jékki andi leen buur boo xam ne day saay-saay lu ko neex def te du ngeen ci man dara mu ne danaa dem ba tegal leen nguur goo xam ne sax day ne ci lu ko neex te du ngeen ci man dara leen jàpp di duma di leen tëj leen def lépp te du ngeen ci mën dara loolu lépp suñu borom waxoon na ko nee bu ngeen sàgganee danaa leen andil nguur goo xam ne lu ko neex def te du ngeen ci mën dara waaw bu ngeen seetaan rek ngeen ci mën yooyu yëpp ak dëng da koy waral yàlla nañ ci yàlla musal kon ku ci nekk war ngaa yor sa njaboot ku ci nekk war ngaa ñëw suñu kon nag lu bon moom lu bon rek lay indi boo seetloo xeetu yonante xeetu lislaam dañoo amoon doole loolu bu njëkk dañoo amoon doole di ci invasion yu bari xam-xam yu bari nit yi diine yi ñoo ko génne naar yi ñoo ko génne amoon doole ci aduna bi téye foofu suuf yu bari waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na bu ngeen demee ba sàggan nee na yusiku an tatada'a alaykum um kama tatada'a akala ila xasatiha kama tatada'a akala ala ila xasatiha nee na bu ngeen sàgganee noonu njanaaw yi di de tiimit ab boo xontee ganaar yi noonu ñuy ñëwee tiim fi nga leen xonte di ko lekk نعم دنا مجيء أنا خير ده فنون ديني ريو جلدي بني أو دولة يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل إلى خصاتها ندان نكو ndax ab neway moy tax ñu def lolu moy tax ñu ñew di ñu sëxato nonu di jëfëndiko ci suñ kaw di lek li jullit yi moom mu ne leen déedéet mu ne déedéet dangeen nekk ñu bari du doon ak ak du doon du doon ak néew doole du doon ak néew ci ab lim waaye nee na dangeen ngeen di mel ne pooke mooy euh, taataay laraxet yi ne ci kaw ak yooyu nee na ni ngeen ñooñu ni ñu néewee doole ni ñu ñàkkee fuñ jëm nee na noonu ngeen di mel noonu ngeen di ñàkkee solo nee na nit ñi danañ bari lool pooke boo ko séenee day bari lool ne ci kaw laraxeet ji waaye du am njëriñ nee na julli dinañ bari lool waaye duñ am njëriñ ndax pas-pas moo du nekkati ci ñoom waaw dañuy fexe ba génn dinti pas-pasu doomu aadama ndax nit ki boo demee ba sa diine nga dem ba sa diine dangay ànd ci jaamu yàlla gi def nii rek waaye yow yow sa pas-pas demewul noonu wala sax nga am complex ci sa diine lolu lu doy war la moy li suñu borom tabaraka wa taala di wax ne fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma khadayta wa yusallimu taslima neena senu ngeum du man mukk mukk mukk mukk lu may da ngayena atté wo ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lim leen digal lim leen at fi fi mu leen jaarloo ngeen jaar ba du ngeen ci am xaraj waaw moom la ibnul xayim di firi ne nee na taxkimu rasulullahi fi kulli amrin nee na mooy lislaam nee na attewoo li yonente bi sallallahu alayhi wasallam dogal nga ànd ci nee na loolu mooy lislaam nee na xadamul xadamu wujudil xaraj fi sadr min xukmihi nee na maqaamu iman nee na nga nangu nag loola te amoo ci benn xaraj ci misaal nga ñewon ci mbolam ay tubab nga ah fi kat ay tubab ba fi nek ngay joxe loxo ngay jox loxo jigen ni daan ne man ka dama bañu jappé ma ko kaw na joxe loxo jigen ni <laughs> ndax ma ngi ci biir ay tubab xam nga kon am nga xaraj ci diiné neena nak ki nga xamanteni ni da gëm yonenté bi si gëm am l'islam neena du am xaraj moy suma lay gi du fi anfusim am xarajat mi xadayta mooy ki nga xamante ni moom fu man di ne wéet kii moo tax bu ko jigéen joxee loxo ma ne ko dama la jox loxo ndax man jullit laa ma wéet ma nekk ci mbooloo ñooyam kooku amul xaraj moom la moom moo tax mu ne nee na al islaam nee na attewoo diine lislaam bañ cee am xaraj ci sa dënn nee na loolu mooy imaan dëgg dëgg dëgg waaw nee na arida bi xëkki ma eh, bi xukkumi yi nag nee na maxamu ihsaan boo ko defee ba noppi nag nga bëgg ci nee na loolu mooy islaam mooy ihsaan nit nag bu amee islaam am imaan am ihsaan daan nay matal kon nit ki bu fekkente ne ni sa diine daa am barab yoo koy def ak yoo ko dul def boo demee fa ngay liggéeyee am na sa diine lu ci wàññiku ndax tubaab bi bañ a ne kii ab kaw-kaw la boo demee fee am diine boo demee Touba ñu naan bu ñu demee Touba niroog waa Touba bu ñu demee feneen mel ne Kooba buñ boo defee ci Touba bi wàññi sa diine am nooy solo am nooy defee te boo demee Touba mel na neen ci sa jëf yi nag yépp sa julli loolu lu ma ta bàyyi xel la wala nga toog fu yaatu mën a jàng alxuraan waaye nga ne gannaaw ay tubaab ak may gis de man du ma jàng ndax dañ naan kii ab dof la waaw su ko defee yow bis boobu ñàkk nga ko tuyaaba ñi nga war na am ñàkk nga ko waaw bis boobu moom jeex na doo ko amati ci sa dund te complexe tax nga def ko loolu mooy mooy am xaraj su ma laa yi jidu fi anfusihim xarajan mimma xadayta wa yusallimu taslima wa yusallimu taslim nag nee na mooy maqaamu ihsaan te diine lislaam li tax ñu bari di ko nëbbu dafa am preuve yu wóor yoo xam ne nit mën na ci teg loxo ci sa imaan yi wóor a wóor a wóor naa leen ci jox benn misaal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne innama bayna al misraayni min masaari'i l janna la kama bayna makka wa hajar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne waxoon na ne aw kama bayna makka wa basra yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na bu yàgg jamono yu yàgg-yàgg mu ne bunti àjjana catul bunt bi ba ci catul bunt lee toll na ne diggante màkk ak hajar Hajar ab dëkk la boo xamante ni bi ñu ko nattee diggante Màkka jamono yi ñu toll nii bi ñu ko xoolee ci GPS bi mi ngi nekk 1273 kilomètres mu nekk ab triangle la Hajar dafa nekk nii Basra nekk nii ñaari dëkk yooyu bu ci ne bi ñu ko nattee ñoo tolloo nee na bunti noonu la toll mu ne mu ne mu ne diggante Màkka ak Hajar 1273 euh, kilomètres la diggante Màkka ak Basra di 1273. yooyu yëpp bi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax nattukaay amutoon boo ko tegee GPS bi net 1273 kilomètres lay doon ab tëli àngal lii ngi féete nii lii ngi féete nii daa jekki-jekki rek wax ko waaw booba nag ñu naan mm, suuf si nu mën a yaatoo noonu gi demee noonu ñu dem a dem dem ba ba borom xam-xam yi tuddee ne alxantuur biddiw bi gën a jege ci ñun bu ca nit doon dem vitesse bi muy daw maanaam boo taalee la vitesse lumière lañ koy mën a natte waaye mën na su ko natt ci vitesse yi moom waaw moom boo koy natt moom dangay ngay wane ne seconde bu nay seconde bu ne nga daw ci trois cent mille kilomètres seconde bu ne nga daw ci trois mooy vitesse lumière boo taalee lampe bi rek bu jëkk sax vitesse lumière dañoo defoon ne amul dañoo defoon ne instantané la dañoo defoon ne lépp benn la waaye boroom xam-xam bu ñu wax. Euh, ci borom xam-xam yi alxaysam moo ko moo ko trouvé te kooku jullit la moo ne woon vitesse lumière bi am vitesse bi am na dafa day duñ mënta seet léegi nag tubaab bi xam nañ vitesse lumière bi mu toll xam nañ ko benn seconde bi trois cent mille kilomètres la ci daw léegi nag biddiw bi gën a jege bu ci nit doon dem euh, dana ci daw ñeenti at virgule deux yu topp ñaar tomb topp ñaar ñeenti at yoo xam ne day daw nii rek ci trois cent mille kilomètres soo ko egg foofu biddiw bi gën a jege biddiw bi gën a jege rek bu ci bu fa nit doon dem ci vitesse boobu loolu lay daw nga xam ne dem nañ ba xam ne leeru ja leeru jant bi bu egsi ci ñun dana am juróom-ñetti minute mu soog a egsi ci ñun nga xam ne ni jant bi foo ko seen fa mu toll noonu rawee nañu juróom-ñetti minute ndax soriwaay bi mu am biddiw bu ñuy wax suxay la boo xam ne bu fa bu nit doon dem dana am ñetti téeméer yi at ak fukk ci vitesse lumière bu soog fa egg kon nga xam ne yàlla moom ak yamuwaayam kenn xamut fu mu bi ñuy wax nag naan maa bay na misra ay ni booba ci xam-xamu doomu aadama dafa jaaxaloon nit ñi lool waaye bi ñu demee ba nattukaay yooyu génn nag ñu xam ne kon loolu du ay caaxaan loolu moo xam nga kon euh, nit ki am yàqeen ci diineem lu yomb la waaw ndax lii moom dafa jiitu technologie ba ko ba ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax booba loolu amut natt googu ñu natt ñaari dëkk ñu tolloo rek waroon naa maa tuubloo ñu ci kaw suuf ñëpp waaw mi ngi mel ne nga togon bam mu yàgg da nga dëkk sàngam dëkk sàngam te boobu nattukaay amul nga ne buntu aljana non la tollu ñu set ko mu tollu net muy jooni kilomètre ak ñaar téeméer ak fa euh, ñetti téeméer yu manké tuti te bo seetee fi set fi tollu tolloo te moom daa toog rek wax lolu motax savant yu bari ci tuba bi nak savant yu bari di dugg ci diiné lolu moo taxoon ñu dema a dem ba euh lolu tax bari diiné di am jamono yi ñu toll ni gàllankoor yu bari diine di ko am ci fànn boobu ñu ngi ko tuddee al al ihjaaz al ilmi manam not gi diine noté noté recherche scientifique ni ko diine noté ci xam-xam moom la ñuy wax al ihjaaz al ilmi léegi nag lu mel noonu moo tax diine ku ko am danga koy téye bu baax xam ne amoo lu gën a rëy loolu moom la Seexul Xadim waxoon ne na ngeen def alxuraan muy seen kër sëñ Tuubaa nee na na ngeen def alxuraan muy seen kër nee na ngeen def sunna muy ñag bi ko wër nee na keneen ko taxaw ci gannaaw nag di leen woo ngeen xam ne seytaane la sëñ Tuubaa nee na nañ def alxuraan muy suñ kër ñu def euh, sunna su yonante bi sallallahu alayhi muy ñag bi nee na ku taxaw ca bitti foofu nag dala woo nga xam ne seytaane la kon nit ki nay nay nay seet ay jëfam ba xam dëppoo naag diine wala dëppoot ak diine bu dëpp bu génnee diine rek nga xam ne kon loolu sëñ bi wax yow génn nga ci bu fekkee ne yaa ngi ci biir na nga xam ne kon yaa bokkoo ci wax jooju boo génnee kër gi génn ñàkk bi nag rek xamal ne kon yaa ngi seytaan xam nga fii nii euh, nitu nitug yàlla gis-gisam dafa di dafa dafa dafa kawe da ngay seet bi Cheikh Mouhamadoul Mourtala di ñëw fii ne nañ fi jënd këru këru kërug l'islam te booba nit ñi seen am am mu néewee ak xalaat yi mu suufee te boobu ñi jàng tubaab ne feek ñëpp kenn xalaatu ko waaye mu ne nañ fi wut kërug lislaam ci bër ci bër loolu lay profito di soññ nit ñi yu baax ci liggéey sëñ tubaab yi ñu góorgóorlu ci ndax sëñ Maamoor dafay ñëw ne ko sëñ Tuba na ko na ko sëñ Maamoor sëñ Murtala daan defee sëñ Maamoor mi ngi fi ñëw di ko taxawal ku ne nak nag damay taxaw ci seigne Murtala te bu seigne Mamour ñëwee nga deltu gannaaw koku da ngay nax sa bop ku ci ne nga la laxasaay ba keur seigne Touba yi ñi fi tëral ken bañ la ci man ndax kat nit kat da ngay dem ba joge fi sa jëf dess fi waye nak joge fi sa ben jëf dessu fi ndax fi ne am ñu fi joge ñu bari ñu faatu ño xamne nek ñeekon nañ fi nekatuñ te buñ defé waxtaan ni dañ ci am tuyaaba ndax seen alal ju bari def nañ ko ci kër gi biñ koy jënd ñi ngi ni tok fi di waxtaan di ci jariñu di am di fi jullee di fi def yëpp te yaa day dem ci ñoo ñooñu sëñ Mourtala lañ ko war ndax bu leen ko waxatoon duñ am loola mhm. sëñ Maam nag ci loolu lay dox ba léegi rek nañ ci góorgóorlu ba nuñ daan taxawee ñu taxawe noonu wax gi ba leen koy wax nag pour pour leen jariñ rek la ndax moom amalu ko njariñ moom sëñ Tuubaa defaral na ko léppam moom amul lu mu ci mën a yokkoo waaye nag gannaaw mooy gite liggéey bi te liggéey bi ci lii rek la jëm mooy bara bi lislaam ni ko sëñ Mourtala daan waxee ku ci dem ba mu yàgg nga sàggan itam sa sa sa sa sa doxin yeex ci kooku itam sa bopp nga koy def kon nag ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ndax bu fi kër sëñ Murtala yi doon lii lii nii du fi am kon ndaje mi mën na am bu am na neen lay amee ta ta ta ko defee ni nga xam ne suñ barab bu bopp la dañ koy tërale nañu neexe lale lale tapis ni ñu neexee ñu toogee nañu neexee bu doon ab saala du demee noonu dañ naan la waxtu sàngam lay jeex Euh, nii la ñu toogee nii lañuy ñuy defee waaye fi ne nii day mel na ña nga biir Touba waaw loolu nag boo ci ñëwee itam da ngay fexe ba sa njaboot nga xirtal leen ci fexe ba euh, kër kër liggéey itam kenn bañ la cee raw loolu tam dama ne woon ca tàmbali ba laa ko naroon a wax nag waaye sax fi ma ko dugal itam ba tey baax na kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. ndax sëriñ bi waxoon na ne nit ki ni mu jaroo ni mu jariñoo ci ab sëriñam mooy day jàpp ne sëriñ bi euh, moom la doxal digganteem ak boroomam sëñ Tuubaa moo ko wax nee nit ki ni muy def ba jariñu ci ab sëriñam nee na da ngay jàpp ne sëriñ bi moo dox sa digganteeg sa borom nee na boo jàppee ne moo dox sa digganteeg borom da ngay jàpp ne lépp lu mu la wax ci suñu borom la ko jële sëriñ Tuubaa tegaat ca ne euh, euh, sëriñ ba itam lam lay wax du weesu lu jëm ci lislaam nee na nag képp kuy digle lu génn lislaam nag nee ko nee na kooka day sànke waaye du ab sëriñ kon nag ñu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax ku ci nekk bunt ba nga nekk di ci liggéeyal sëriñ tubaa muy lu mel nii nga nga fonk ko bu baax bañ caa deltu gannaaw ndax yëf yi dafa dafa gaaw te xamoo fu mu fu mu fu mu jeexe fi ngay mané ak fi ngay télé dafa jégé lool fi nit ki di amé katan di teub di bakku ak fi mi démé ba dama dara dafa jégé lool lool lool lool kon nak ñu bayyi ci xel baaxa baax ta ta ta, ta gëna gor gor lu ci yaru goné yi ndax serigne touba wax na né gaay yu baax ya dé néna awliya yi néna ñu baax ñepp nit yalla yi ñi ci diwan ba ñu kawé ñi nee na da lañ egge ci yàlla nee na du du du du koor gu bari du génne asaka bu bari du dem màkka gu bari nee na yar la ak teggin nee na yar ak teggin lañ egg foofa mu dellu ca tegne ne yar ak teggin googee nag nee da ko tënk ci juróomi ponk nee na ba ca njëkk ba ca njëkk mooy liggéey bu rafet lim tënk ci ne ne na liggéey bu rafet ak dogu ak sant gu wér ak war ak may suñu borom yi nga respecté ko nee na yooyu lañ yooyu yooyu mooy yar beeg teggin muy muy xurumaatillah ak sha'airallah xurumaat yi nag nee na Moy ku jang alquran te koy jëfe nga war mal ko nee borom xam-xam bu jang ba am xam-xam te koy jëfe nga war mal ko nee shahairi nak moy war mal jàkka yek juma yek motax barab yi ku ci nek da ko war mal war ndax barabu jaamukaay yalla ñu bëgg ñew ñëw ci ñaareelu xaj bi jëm ko taje waxtaan wi mu ñaareelu xaj bi kon dafa mel ne dafa mel ne bu ñu waxee natt yooyu nit ki mën naa wax ne lu tax yéefar yi dina ci ay mooy ba pare suñu borom di leen joxo di leen jox di leen di leen xéewaleel moo tax mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa tontu na loolu نينا إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب وهو مخيم على معاصيه فاعلم بأنه استدراج الله من الله عز وجل نينا بو غيسي نيت كي دي ام لي بغ لب تا جامود يالا نينا خمال يالا دكو بغ ديغرادي دكو بغ جيلي تي كاو ndax toroxal ko wala jublu istidraj moy lolou joge ci kaw wacc suuf نانا بو نيت كي نانا اذا رايت الله اذا رايت الله يهتي العبد ما يحب وهو مخيم على مهاسيه سو فكاي غيس نانا جام بي يالا نكو جوخ لي مبغ لب مو نتي تا موم ماغي موي نانا كوكو استدراج لاكو سوني بروم دي ديف مانام بوكو واتي رك سوكو دي نانا كوكو بوكو ني ييفر بيم ام لم ام لب بوكو ني نانا بان فاتي يالا teewut suñu borom ubbil na leen wërsëg yu baree baree bari bari nee na suñ demee ba bégg rek nee na ñu daal koy téyewaat lépp baax datan fa ida hum mublisun nee na ñu daal di téye lañ amoon lépp te ñoom defoon nañ ba defoon nañ ba defee nañoo ci nekk nag nee na kon loolu euh, istidraaj la yéefar bi lim am ci lu baax bu ko ñëwee moo tax sëriñ Touba waxoon na ne nit ki lim jëf ngir yàlla kese nee na ay mbóot rek la ciy jël ay mbóot la ciy jële ay mbóot nee na li nga def ngir àllaaxira ay leer nga ci jële nee na li nga def ngir àdduna nee na ak lëndëm nga ci jële li nga xam ne àdduna tax nga def ko nee na lëndëm kese nga ciy jële la nga def ngir yàlla nag nee na ay mbóot la lay jox waxuma mbóot yi di dox nag gars yi dañoo dégg doolof kon nag def ngir yàlla moo am solo lépp loo def ngir yàlla rek suñu borom dina ci yokk say mbóot lépp loo def ngir àllaaxira ay leer suñu baram daan la ko ci jox waaye nag nee na lépp loo def ngir àdduna nee na loola ak lëndëm rek nga ci jële kon nag nit ki lépp lu muy def rek na ko def na ko def ngir yàlla kon nee na ñit ñi nga gis ñu am xéewal li ñu am te nekk lu bon nee na ñooñu suñu borom da leen di istidraaj bëgg leen a gën a jekku rek ngir gën a gën leen a wàcc xeet yi jiitu woon yépp dañoo mujj rek torox fa amma aadun fastakbaru fi l ard bi geyri l xaq waxaaloo man ashadda minna quwwatan ñoo ñëpp muy waa aad demoon nañ ba defe ne ñoo ëpp doole ñëpp waaye foos gisoo afalam yasiru fil ard joo gis rek gis ngeen la topp ci ay mbugal rek moo ca topp ak ak jeex loola jeex ba kenn du ko xam ndax boo ne woon ana waa aad fu ñu dëkkoon kenn du ko xam boo ne waa samuud fu ñu dëkkoon kenn du ko xam ba ci suñu jamono yi sax bo seetloo ceddo yi bo demone ci barabu ceddo yo xamne do xam sax fuñu ne te ceddo yu mag lañ yo xam da nga leen di deg bo demé ci barab ya dara do fa nek kon nak na ci na ci diine rek mo am solo nga dem bo laaje barabu barabu sayyidina Bilal ñu wan lako nga laal nga laaj barabu sayyidina Abbas ñu wan lako fo laaj ñu wan lako waye nak ñi nekkon ci lu baax ñom ñoy am jeexit waaye kii wut àdduna moom nee na lëndam rek la ci jële sëriñ Tuubaa mas naa wax taalibe yi ne leen ndax xam ngeen waajib ak manduub ak mu baax sëriñ moo ko mas a wax taalibe yi ne ndax xam ngeen waajib waajib mooy li war duub mooy liñ sopp mu baax mooy lu dagan mooy leen ndax xam ngeen loolu mooy lan ñoo ne ko déedéet mbàkk bu ñu ko xamoon jël de mu ne seen waajib yéen mooy ngeen wàcc ci lal yi te dem ci der yi nee na ngeen wàcc ci lal yi dem ci der yi wàcc leen ci lal yi dem ci sajaada yi jaamu ji yàlla ndax nee na lal yi ku ci wàcc itam bis dana ñëw eh, tëdd ba ngeen tëdd ci lal yi nee na jërta yàkkamti nee na bis dana ñëw ku bëgg tëdd ku bañ tëdd am na koo xam ne ma nga tëdd junni at xëy na nañ ko tëralee baaxut waaye du yëngutu def ne nam noonu lay tëddee ba faaw ta ña fa nekk ñu ëpp ñi ci kaw suuf kenn xamul nuñ toll moo tax mu ne euh, wàññi leen tëdd ci lal yi seen waajib seen waajib yéen nee na mooy ngeen wàññi tëdd ci lal yi te dem te dem ci der yi jaamu ji yàlla wàññi tëdd bi ndax nee waxtu tëdd bis dana ñëw ci bàmmeel ku bëgg tëdd ku bañ tëdd kon nee na jërta yàkkamte kon nag waajal loolu lu am solo la mu ne lan ñu ne ko man dóob bëggoon nañoo xam itam lan mooy suñ man dóob mu ne seen man dóob da mooy na ngeen moytu damu te bala ngeen damu ngeen bàyyi bañ ne démb la woon bis penc nee kuy damu na bàyyi bañ ne woon démb la woon bis waaye yére yu rafet rek wala oto yu rafet wala xaalis wala martabab àdduna ngay damu bu ëllëgee ñu jël def ci suuf nee na kooku bul damu nee na kuy damu bala nga nga bàyyi bañ ne démbaloon bis penc ba nga xam fa ngay jëm ak lan mooy sa daraja nee na loolu mooy seen man doob nee na nee na ngeen wàññeen di ko damu ba bañ ne suba la woon démb bis penc nee boobaa moom ku bëgg a damu mën ngaa damu waaye martaba àdduna moom jërta jërta ñëwee kenn jërta da dame kenn jërta da jërta neexal kenn itam wala ngay dagu kenn ndax yéen ñaar ñëpp ay néew yuy dox rek ngeen moo tax àdduna daanaka ku jekk ku jekk amu ci ñàkk yeewu rek moo fi demee nit ku jekk sax amu fi ndax ku nekk yàlla rek la waxtu mu koy faat ba nga xam ne nii moom ma ngay xaar ah, bu waxtu jotee rek mu dem lim naan moo ko moom itam amu ci dara ndax bu nit ki ak ak ak moomatul dara ki yoroon ni milliard ak ki yoroon dërëm a yem kon nag loolu lu mat bàyyi xel la ku ko xam da nga am dignité ci sa bopp am yoo xam ne doo ci dugg am yoo xam ne tam àdduna du la ko jaral moo tax mu ne na ngeen moytu damu te bàyyi bañ ne démb loon bis penc ci ngeen soog a damm mu ne seen seen mu baax mu ne ñu ne ko suñ mu baax itam da bëggoon koo xam mu ne seen mu baax moom dara dara dara mu ne mu wax ñetti dara sëñ Tubaay wax de mu ne dara ju njëkk ji nee na ku xam dara ci sa borom xam ne moom dafa ànd ak xudra ak iraada kàttan ak nammeel te nee na bu yëkkatee bi yaram kenn du ko téye bu yëkkatee yar kenn du ko jàpp bu yëkkatee bi yaram di dóor nee na Sëñ Tuubaa nee na yàlla bu yëkkatee bi yar kenn du ko téye nee dafa am uh, ira kàttan ak ak ak ak nammeel nee na kooku xam doo doo bañ a defee lim la sant doo ko bañ a def mooy dara ji njëkk ji daray ñaareel ji mu ne ku xam dara ci àdduna itam doo def dara ngir àdduna ndax ne lépp loo def ngir àdduna rek nee na ñàkk nga ko xam nga njëkkoon naa wax fene loo jëf ci àdduna ak lëndëm la waaye fii tam waxaat na ne lépp loo def ci àdduna itam ñàkk nga ko ndax du mujj fenn dara ju mujj nag xam nga dana mu seen mu baax moom dara dara dara dara ju mujj ji nag neena na nee na ku xam dara ca ëllëg nee na loo fa loo loo fa yóbbu loo fa jiital du doy nee na loo def ci lu baax jëmale fa nee na du doy ndax foofa dund ko du jeex la amul màggat amul jeexat amul dara moom da ngay continuer rek di dund moo tax mu ne foofa yóbbal du fa doy du fa nit yóbbu rek des na moo tax loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am yërmande ci xeet wi digal leen ñuy naafila comme que boo jaamu yàlla ba noppi ngay ngay ngay dawal ay naafila bu dee ci boo defee asaka ba noppi ngay def sarax bu dee ci julli ngay def naafila bu dee ko bu dee aj nga dem def omra jaamu yàlla gu ne rek wutal na ko naafila farata ju ñu nekk teg na fa naafila ba ci koor sax day am koodu koodu gàtt yi waaye ndax fañ jëm dara dafa jeex dara dafa dara dafa doy loolu moo waral loolu sëñ Tuubaa wax ne ku xam dara ca ëllëg nee na loo loo loo fa yóbbu ma ta bàyyi xel la waaye ki nga xamante nii bu jaamoo yàlla tuuti réyal ko lool ndax ndax diine moo tum rànke fi ne boo nekkee ci kër di julli waxtu juróom dong yu mat sëkk dañ la yéem dañ naan kii de ab julli xàqan la te xamoo ba xam buñ ko taaraaree la ca la la cay wadd ixlaas ga ca am ga ca war ndax am naam déet kon nit ki li muy jaamu yàlla waru cee naagu waru cee aawlu defe ne lu rëy la waaye da ko war a xeeb xam ne fa mu jëm moom du jeex mukk du jeex mukk ci àdduna du jeex mukk ca foofa te suñu borom moom fu nit man di nekk lu mu xat-xat fépp suuf wa ca ron xeer wa ca suuf maa ngi koy gis ma ngay jàkkaarloo moom mu mel na la boroom xam-xam ba waxoon rek li li jafe-jafe yi doomu aadama yi jafe yépp nee na wa maa xadarullah xaq xadrihi nee na dañoo joxut yàlla dañ ko wàccewoon wàccuwaayam nee na moo indi jafe-jafe yi ci àddu yëpp waaye bu ñu wàccee yàlla wàccuwaayam nee na yu bari duñu duñu dal te xoj bu googu duñu duñu dal xeet yi jiitu woon yëpp فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان الذي خلقهم هو اشد من قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. عاد نون لاج ديكيون واي لا تي تيغي موي جيخ رك مبوغل مو جيخ ملني مسوني ام فارسلنا عليهم ريحا سرسرا في ايام النحسات لنزيقهم عذاب الغزي في الحياة الدنيا والعذاب الاخرة اخزا وهم لا ينصرون. كن naka jekk bàkkaar mbugal moo ci topp bu dee ci àdduna bi da gis ñu am doole ñu amoon doole lool mu dem ba déggatoo leen li li jafe-jafe àdduna mooy ki am doole tey mooy ñàkk doole ëllëg ci misaal bi rek lu mel ne Union soviétique xool Union soviétique ay at ci gannaaw ni mu amoon doole léegi jeex na ba indi ab guerre sax ba ñoom ñu bëgg koo taxawal ndax ndax néew néew guñ néew doole te am nay jamono àddina bi dañ ko xaaj ci digg bi ñi féete nii ñi féete na def guerre noire guerre froide dama juum waaye ñee dem nañ ba seen doole jeex ba mel ne mosuñoo am ci kaw suuf kon tomb bu mujj bi mooy mal maxraj lan moy genn way bi lan lan motax ñu mëna génn ci loolu loolu nak moy al amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar moy digle lu bax tere lu bon ndax li taxoon ñu nekk xeet yu gën kuntum xayra ummatin lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar wa tu'minuna billah nee li taxoon ngeen nekk xeet yu gën moy da ngeen daan digle lu bax di tere lu bon kon nit ki bu fekkee ni dindi nañ ci moom loolu julit bi bu diglee tudd lu baax terewut lu bon kooku ak njullitam day tax suuf te du bokkati ci xayru ummatin uxrijat linnaas da ciy daal di génne boppam kon nit ki bu fekkee yow seetlu nga ne doo digle lu baax mukk doo ko kiil fu ñu defee lu bon sa yoon du ca nekk muy laa yaddurukum man dalla izaa tadaytum loolu nga firee ko noonu rek toog nee na kooku kon doo bokk ci xayru ummatin uxrijat linnaas ta ta ta jëm googu nga koy jëm bu ci xeb dara amna na ben boxeur bu bo xamanteni euh, ab almaa la bu dan box mu dem Arabie Saoudite ñu ko fa don teral am ko ko jox cadeau ben euh, téré mu tok fukki at ubi téré ba xol ko fekk dañ ko traduire ci mu khul huwallahu ahad mu jang l'ikhlas yaram wadi lox mu dem tuub dugg ci dine kaa ko jox téere ba kon xam nga ma ngay digle lu baax di tere lu bon te ci lu yomb la ko defee réewi tubaab yi boo ci nekkee waxuñ la nga far sa nit ñi ndax boo ko far moom la neen mën na la caa sax waaye nag ngay wane jikko ju rafet man cee képp koo ku xemeem sa jikko bëgg a dugg ci diine nga yombal ko ko am na ñoo xam ne nag lu doy waar def loo xamante ni nii lu mat a bàyyi lu doy waar la ñëw ci réew mi euh, gis tubaab bu jigéen bëgg a tuub nga nga takk ko muy sa soxna nga tuubal ko ba noppi mu dem ba ci biir euh, jàngaloo ko diine xanaa di ko wan jikko yoo xamante ni nii day day xeeb lislaam ba génnaat yi wala mu sàggane diineem kooku bàkkaar bu diis la euh, ñi nga xam ne dañoo am ay soxna tubaab war nañ cee bàyyi xel euh, ñi nga xam ne itam tubaab yi dañ leen laaj seen diine ay tubaab yi tuub dend ak ñoom ñu nax leen lekk seen xaalis ba tubaab ba gedd génn ci diine loolu tam ku ci gis kuy jaxasoog tubaab yu tuub na nga fexe ba digal leen ñu moytu loolu ndax loolu boobu bàkkaar moom fa la bàkkaar yam ndax yow safaanub mm, safaanub diine ngay def kon maanaam liñ ñu dégle ci lu baax yow day mel ne day mel ne safaan ba nga nekk ñi bëgg a dugg ci diine sax yow da ngay mel léegi kon kuy xeex lislaam moo tax euh, euh, fa in lam tastati inkaar al munkar laa bi yeddika wala bi lisaanika fa bi xalbika nee na nag boo mënta tere lu bon mënoo ko dindi ci soxla muy addisu man raa minkum munkaran nee na man raa minkum munkaran fal yuxayyirhu bi yadihi aw bi lisaanihi aw bi xalbihi wa dalika ad'afu al iman ki nga xamante ne nii mënta tere lu bon ci loxoom mënu ko dindi mënu ko dindi ci wax nee na kon la ci gën a néew nga bañ ko ci sa xol bañ xam ne bañ nga ko ba bu fi nit ki bàyyi tey ñu ñu ko doon tàgg ñu ne eh, kooku da ko ragal yàlla la woon ñëpp duñ ci am sikki sàkka ci ne ko ragal yàlla la woon waaye bu dee ko fi bàyyi ñu ne ci kooku de bëggoon na misik lool waaw bëggoon nay misik lool wala kooku de football jaraloon na ko lu ne waaw kooku de football jaraloon na ko du nelaw bu équipe sàngam daan football de jaral na ko du añ waaw wala diw de musique seen sàngam mooy musique am buy musique de moom jaral na ko lu ne loolu danger la waaw dem ba nit ñi màndargal la ci dara loo xam ne yëfi caaxaan la te xamoo kañ nga fiy jóge ki jóge fi ñu ne diw de moom loola nekkoon biram loolu yàlla nañ ci yàlla musal lu doy waar la kon nit ki euh, buy tere buy tere lu bon itam da koy def ci kem kàttanam waaye waxuñ ko mu forcé kenn na ko def ci rek ci fi kàttanam toll ndax dund gi dafa gaaw am na benn boroom xam-xam bu doon waar nit pour bëgg koo waar ci waar goo xam ne du ko merloo mu ne ko ñaata at nga am mu ne ko man de am naa juróom benn fukki at mu ne ko loola fi andi mu ne ko ñun de inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mané ko kon xam nga loolu xam nga loolu mané ko waaw mané ko kon day melni kon bi nga booba tay yaangi dox juróom benn fukki at kon da lee nga egg nee nañ kooka dafa joy ba ci ci la gëjë moy yalla wa ta te kooka dafa demoon ba sagal mu ne ko yow ñaata at ga am mu ne ko juróom benn fukki at mu ne ko lolu andi ci aduna fekk dañ doon waxtaan ci diine mu ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ko kon jàpp nga ne da nga delluwaat ci yàlla mu ne waaw te bi nga ñëwee juróom-benn fukki at yaa ngi fi kon de mel na ne yaa ngi jege ji kooku fa la jógee di jooy di jooy fa la jógee ba ragal yàlla xam nga kooku waa waar gu yomb la te xulawut ak moom xewut ak moom te xasu ko kon nit ki lu mu doon doon mag ak lu mu sàggan sàggan bu tuubee ci suñu borom tabaraka wa taala yàlla da koy jéggal muy xul yaa ibaadiya allazina asrafu ala anfusihim laa taxnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamian innahu huwa alxafuru rahim nee na yéen bu leen naagu mukk ci ne mooy naa mooy mooy ba dama dama tuubati nee na déedéet nee yàlla day jéggale bàkkaar yépp mooy ki yërëm ki ko soob ci àdduna ku ko neex ci àdduna di yërëm ko soob àllaaxira kon nit ki lu lu bàkkaaram lu bàkkaar rëy rëy tuub gën ko woyof kon nag li am solo ci nit ki fu mu mën di toll rek muy tuub foofu la ñu tëje waxtaan yi mooy tuub gi nag mooy li sëriñ bi waxoon rek wa min shurutiha nadamatun ala ma fatahu min al maasi musjala wa an yakuna taarika al isyaani in kaana asiyan bila tawaanin nee na nit ki buy tuub tuub gi daal ci gàttal bu melee ni xel xelum tegoon tànkam teggi ko noonu la tuub gi mel rek tuub gi nangu nañ ko tuub gi daal buñ ko buñ ko tasbiixee ci ko lakk teggi tànkam nee na bu fekkee tuub gi loolu la lool tuub gi suñu borom nangu na ko waaye tuub naa tey ma tuubaat nee na loolu googu googu tuub moom du am solo nit ki dafa war a gaaw ci la muy def rek tuub fa saasa bañ koo defati kon nag xam naa foofu la ñuy waxtaan wi di leen sant bu baax di leen gërëm di ñaan ñu fekke ko at yu baree bari sëñ